suma wax jeexal ko làmmiñ mooy mbootu réew xam leen ko bootal roogat di saw xeet gis ko adduna jot naa dafa yaatu kon yow fegul yaatu pegu fegul nekkal làmmiñal askan def lépp làmmiñu cosaan ndax adduna gànnaar si nag sow làmmiñu réew gëstu mu yaatu làmmiñu réew bindal mu yaatu taal si la Muxtaar tey dangay dalal si la Nduwaar tey Ndakaaru ñaay jël doom ngay dalal grand sëñ de Dakar ziar naa la Abdoulaye Makhtar Diop jàmbaar na yow Alioune Badara Gueye jàmbaar ay xaru écrans, etc., la famille littéraire africaine, la muse éternelle. Wonderful things move around our lives. ñenn ñu Ibnu Saar jàmbaar de laay woyal kon nag moo liggéey ne bay bay gànn dañu woon il me faut tout le pétrole d'Arabie pour éclairer les tonnes de petits qui n'ont pas Il me faut tout ce qu'il faut pour qu'un enfant soit heureux, pour qu'une âme soit